Oh oh bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi ñu ngi koy nuyu di ko dalal ak jàmm ci kanamu télévision Futur Média boole ci nag cofeel gu dul jeex ne ni ma koy waxee saa su ne àdduna lépp cofeel la te lépp. cos euh, cofeel dana ko defal diggante yi léeg dañuy naqadi waaye bu cat cofeel newee rek macha allah dana neex a jubanti kon yal na yàlla lafal ñu cat ñu ngeen nuyu suñu PCA mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah di leen ñaanal kendal ak jàmm kendal ak jàmm boobee tam dinañ ko yóbbu ci wetu askan wi dem seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci nag xalifa généraux yi ne kenn du leen mën a rocc ci kilifa diine yi kon ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp macha allah di ñaan yàlla mu yàggal leen fi te mu ànd ak wér ñaan yàlla itam yàlla yàgg nangu seen ay ñaan ne boobu ba tey ñoom ci la ñu ne ak askan wi mbooleem ñaan boo xam ne ñu ngi koy ñaan yàlla ngi koy nangu kon bokk yàlla na doon lu sax te saabu bu nu tourné macha allah ñu gis leen. ñu daal di wax salaamaaleykum mbokk yi dugg ci euh, clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi dem seeti malade ya fa ne. di leen masalu coono di leen fàttali ne itam yàlla mooy dogal lu mu namm war na lu mu àggale daa jot macha allah yàlla na namm ci ñoom ñu wér bu ko defee itam lépp loo xam ne laal nañ ko rek yàlla na ci roof barke àdduna moo ni mel ku fi ne ku ne di nga ñam ci yi fii am mooy les hauts et les bas de la vie nu mu la dikkee rek boo àndek sunu borom macha allah lépp dana baax moo tax dinañu wax salaamaaleykum dugg ci biir euh, euh, prison yi ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw nattu du wees ku yàgg ci àdduna xam ne lu ne am na yal na yàlla muñ loo leen ba jële leen ci bërëb yooyu te itam bu ko defee lépp lu ngeen laal yal na ci rof barke te bu leen fàtte mukk xam ngeen doomu aadama bi léeg yàlla yàllaa ko gën a simple ne yàlla bu la jéggalee jéggal na la waaye doomu aadama yi dañ lay tëj prison ba noppi boo génnee ñu lay xoolee bët ànd ak lu mënti am na ngeen ànd ak sunu borom moom rek moo mat a àndal ñu ngi fàttaliku ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla gën a dolli yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xel dem ci sunu jur yu baax yi mag ñu baax ñi macha allah yal na yàlla taas ñu ci seen barke ñun nag ñu soppoon lool sopp leen sax ñoom ñëpp macha allah waaye ki ñuy fàttaliku saa su ne fekkee itam euh, wax dëgg yàlla jamonoom muy suñu maam euh, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké di suñu maam maam Abdoul Aziz si mu baax ma macha allah ak itam ki nga xam ne mooy Boukounta Ndiassane Cheikh ti Sy Al Maktoum ñoom ñëpp yal nañu yàlla taas ci seen barke bu baax a baax a baax suñu waxee loolu itam xel dem ci maam Limaamu duñu liim duñu liim cheikh al islam maam Baye Sénégal li fi ne macha allah amul fenn kon bokk yàlla na nu yàlla taas ci barke mag ñu baax ñi bisimila leen ci seen émission wareef ma ciy feggoog ajaratu mami Linguère Diop ànd ci itam ak càmmiñam ndooy baan macha allah di leen wax rek bisimila leen balaa noo dugg ci thème bi. xanaa damay daal di dem doy ban li muy lijjantee bare moo tax lu ne dana ka dal ci biir plate xam nga tamit bu fekkee ca kaw wala ma. bu fekkente ne ci benn wala nga. wala nga yelu ko ci benn une heure de temps bëgg nga cee dem cinq continent ñëwaat mënta ne. la nga ñuy wax fii bës dama lay enregistré da def ko direct tegal ko kilifa yi ñu lenn rek moo ma naqari day ëpp émission. xanaa dañ koy def une semaine dem tëddi. waaw waaw macha allah ah waaw dama bëgg a wax foofu ne yàlla daf lay jéggal jéggal na la macha allah te moom moom ñëpp waaye xam nga doomu aadama bi da ngay tëdd sa pen ba noppi boo génnee ci loolu mu mu lay xoolee ci bët di la indexé di la jugé. même soo demul kaso sax doomu aadama yi nii nii nii nii ci dund gi nii rek dañ lay bëgg tëj prison. oh. mais da nga koy bañ. lu la yàlla tegul bul nangu benn doomu aadama di la ko teg. dëgg xam nga leen naan tubaab naan mental. mental de fer. dafa baax nit daf ko war a am. tey da nga yeewu rek strong. non non man je toujours comme ça man nii la man man bégee chaque jour nii laa mel yow kay moo tax lii xew ci suuf bégee bégee attitude. attitude kaso bi gën a kaso bi gën a garaaw xel la. mais bu nangu loolu. kaso bi gën a garaaw. du 4000 yee ca camp pénal du yee ca rëbës. du yee ca ba ca boo bëggee sax ca feneen ku ak feneen. samaam loo koy ñaanal. mu mag Nelson Mandela. aywa bisimilah <laughs> li ma la bëgg a wax foofu mooy que. dégg naa la. Euh, du ma la may du ma bàyyi yàlla may la bu ko kenn nangu. Mhm. sama yaay nee na tey nga dee moom ma loo rek a koy naqari. Oh. nee na bu ko yàlla reyee amul problème. mais jàkkaarloog moom ne ko tey nga dee nee na keroog nag lay dund. moom nee na boo waaxoo wutal si buntu këram mu seen la ngay ñëw. Ah. mu wër ko ne xeexal a tax a jóg boo fëggee da lay mbéj. bu nit ñi dikkee la la fa indiwoon woon dootoo ko wax. samaam yàlla lu tax mu mbéj ma rek ngay wax yàlla sut Nelson Mandela aw fan kenn nangu kenn ku la teg. te pareegul nag ku xelam gàtt ba mu toll ci di la métital ba ko ak métit boobu noonu moom mu ne di ko dund. waaw happiness. sama jërëjëf Cheikhul xàppi nes aywa bismillah jërëjëfati Cheikhul Khadim si Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela topp koy jaloore di ziyaar bu baax kilifa diine kilifa aaday sunu soppe xol ba sunu maam ñu bëggoon ko lool mu xajoon fi lool maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Serigne eh, Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi yéen yéenay keroog mbaar mi ndax ñun bu ñuy nelaw yéen a ci dar bi te jàmme réew mi rekk leen fa bàyyi hmm. kon yàlla na ngeen fi yàgg lool lool yàlla taawi fan wi guddal eh, wéral wéral cër yi guddal fan wi lool ba ngeen gën fee yàgg la ñuy ñaanalee sunu yaay dégeen mu dëkk alayhi wa sallam kamara jibante booy yaa xajja yàgg fi loolu te wér loo fi yàgg doyul ak njaboot gi yëpp waaye noonu la ñuy ziare suñu yaay bopp yi mm. yaay astu jara yaay astu sekk mère Ndoy aw maa ngi lay ziar tata maam Fili Diallo waaye di ziar sama yaay Njaay Jaata yow xam nga ne benn nga ci man mm. mais groupe groupe Mbabor mm-hmm. yéen laay waxal tey tàmbalee ko ci mère Kubra Anne. kenn rek laa ci génne muy aw pillo sama goro ma maman Adama di tey yaa boole sa bopp ci groupe Mbabor Ndey Senaba na fi jaañ sadik maan bi Mbayang lum yow moom sama seex nga duma la ci boole ami Cheikh Yaaba sama sangu buur yow itam du ma la ci boole beneen groupe mbaboor bi yéen ci des ñëpp lu ngeen wax encaissé naa amul benn problème. Ah, d'accord ak Eva mi leen di jàppale ci plateau bi. <laughs> jaajëf ñuy ziar kilifa diine kilifa aada yi di ci tiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. amiin yàlla yàlla def sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak notable yenn pir sañu xoor yëpp moom parent Djibi jaañ ak euh, baay Bado Dieng ñu ngi koy ziar. monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy ziar baax a baax di ziar moo ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi seetaan euh, surtout ñu nekk bitim réew tamit ñoom sunu yaay ja kii nga xam ne moo di madame Fatou Gueye Emma madame Derviche. Mm. ak euh, madame Dioum ñu ngi leen di ziar bu baax di leen wax rek. émission bangoog di nuyu jànq yi ci biir kër yi nga xam ne thème bi seen thème la euh, bu mu leen mën ngeen koo seetaan waaye bu mu tax ngeen naka sudu noonu xool leen li nga xam ne moom moo baax ci émission bi ngeen jëm jëfe ko parce que da ngeen a ñëw pour daan seen doole pour am dara loolu yóbbu seen biir kër mhm. soxna Eva ma ngoog yabeel newu ca fa nga daan lee dama cay kontaan lool yabeel newu ca ne dangaa xool sa àdduna xam ne am na lu la manqué la la manqué nag amaan na mi ngi sa loxo morom boo demee ci sa moroom jox ko sa doole bu weer dee mu fay la la Matar sekk Mboro doon wax yal na nu ko yàlla fayal góor goo xam ne dama ko soppoon lool te xam naa ne bare nay soppe doon na wax ne boo moqalee sa métier da nga lekk sa alalu nawle te du la dikkee dara ne lu mu lay jox ci loolu yaa koy moom kon bokk yàlla na yàlla barkeel sunu liggéey barke nag ku koy ut dafa am nooy nooy saxoo dafa am nooy baaxooy def dafa am comportement booy am nit ki def laa dénk këram bu ca nekk bu ca newul jikko ja nga yor na ko yor parce que bu taxawee nga def yenn yu rafet yi bu demee nga def yeneen yi loolu bu boobaa yow ak sa bopp la yow yaa am problème damay dee wax ma ni Eva Tra bu gisee Mami Linguère daa dee kontaan reetaan bu Mami Linguère demee mu yekk ko lu mel ne xeme Eva bu toogee na xam ne Mami Linguère euh, euh, ma nga ca jàmm waaye moom Eva moom moo newu ci jàmm te mu mel ni dafay am nag ci suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yor suñu kër yi mhm. diggante boobu dafa war a rek rafet Mami Linguère du ko weddi mhm. dafa war a doon loo xam ne diggante nit la ak bokkam te la waxee sa bokk am na déjà loo koy téye ca ndorteel ba mhm. yow itam yow mi nga xam ne yow yaay patron yàlla def la fam la teg teg la fa dénk la teranga dénk la ba nga xam ne xam nga ne yow mii ci sa àdduna mën ngaa ubbi sa kër jël ay doomu aadama ñu lay liggéeyal gënoo leen ci lenn ndax ne naa ñun daal ci li ñu gis ak li ñu jàngal defe naa ne que la gën a ragal yàlla ah bu dee gënante fa la ñuy dem xool ku la gën a ragal yàlla gën la macha allah dina ñuy faral nag bi wax judd gu rëy ak jëf ju rëy ak yu kenn xamul mais na ñuy tam ba tey nee naa lépp day dugg rek mbokk yi ci jikko sàllaaw mhm, mhm. ndax judd gu yi baax na waaye rafet jikko dakaa gën itam macha allah mhm. yal na yàlla lafal ñu cat ubbi nañu sunu ay antenne ne leen mën ngeen a woote ci 88 628 vingt 22 88 628 04 05 fii lay xewee ci TFM. Mhm. télé bi nga xam ne seetu la ci ñun ñëpp jëkkee ko ci ñun. ne Linguère wareef du nu bàyyi macha allah. déedéet déedéet wareefu ñëpp la. Mm. ba ñu nee wareef rek la ñu làmb fépp. parce que kenn ku nekk am na sa wareef te ku wàccul sa warugar ku nekk rek dina am loo xamante ne nii doo ca yegg xam nga dama musa am ku may tooñ ma ne ko kaay ma wax la dara mu ne ma waa ma ne ko boru banque ak warugar a kenn du ko ruy di naan di wëllax ndi kuy dem gis nga mhm. euh, euh, Ndoye ndax gën a mën a jot rek ma ne ñu ngeer lu gën a defar Eva ñuy nuyu bu baax ñuy nuyu bu baax Khady Diouf ak kii di Eva Dupont ñoom ñi ngi ci face Facebook bi di di di di seetaan. Eh, ñi ci Facebook bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a nga gis Eva am na loo xam ne suñ ko génnewul fee génnewuñu ko Sénégal ci suñu biir kër yi. ak ci mm. wala ci suñu jikko. Eh, lii ñi dinañ ko tem temati ko. muy wax mm-hmm. naa la ko barki dem muy xeeb. dëgg nit. dëgg da ngay nekk ci benn entreprise nekk directeur ba ah xeeb say employé. nekk seen chef nit du xeeb ay emploi fii yaa ngi xeeb say employé rek fii ak yaa ngi xeeb say employé rek euh, nu mu tuddati sa liggéey du jaar yoon te toujours da ngay am problème ak say employé soo ñëwee doo soo xëy suba doo nuyu say employé day am ci entreprise yu mag yi biir kër yi ki nga xam di nuyu ay ay employé yu mag yam nga xam ci entreprise am kooku janq ba ci biir kër ga jarta wax yor say employé am tegoo leen fenn mus naa la fi wax jël be jël jël sa asaka wala nga jël ay millions yi baree bari def ko oto ni da ngay yóbbu asaka wala da ngay yóbbu sukkaru koor di ko yóbbu feneen. daw ay kilomètres. te waaw te pare yaa ngi yoreel say employé ay ay ay ay millions yi baree baree bari ci ay salaire loolu musiba la. comprendre nga mu ngi mel ni tey ngay génne say sa suuk sa sa sa asaka ci biir kër gi. te wóor na la ne jànq bii nii yaa ngi koy fay trente mille. nga war a génne 15 millions asaka mais yow asaka ndox du jéggi pax sa chauffeur bi ngay fay cinquante mille jox ko asaka ji boole ko ki nga xam ne moom moo di euh, moo moo di sa jànq bi ak sa gardien bu sa buntu ak gardien bu sa buntu kër mais duñ ko def dañuy dem wuti fu leen di fu leen di taggee ak fu leen di fu leen di gërëmee mais ngërëmul sunu borom moo gëm gërëm yëpp tey jii soo bëggee sa asaka ji joxe ko mu dal mm. jànq boobu tey jii soo yëkkati woon cinq millions ni ko am sa asaka mm. <laughs> mu dem wuti liggéey beneen liggéey bu gën bii nga ko jox kay dëgg mais donc te liggéeyu kër a ngi metti ndoy baal parce que nag yàlla xam la ko sénégalais ñun sénégal ca ñoom yàlla jégal ca ñama ko bëgg a wax bëgguñu ko leen raw maanaam tey jii yow sa jànq bi ngay gis da nga bëgg muy nekk jànq ba keroog muy dee tey jii bis boo yàlla musal su bis boo doxee bis boo bis boo bis boo doxee ba ay jamono nga gis ko jànq bi ah. yor 4-4 di ko dawal dëkk moo ne sama jànq la nga ni waa yow kii année nangam moo nekkoon sama jànq waaw waaw ah pour la yow loo nekkoon avant ngay am li ah. koo gis am na lu mu nekkoon ah dellu nga ci waxu dëggeen ba de yàlla hmm. yàlla yërëm ko waaw ah, yow loo nekkoon nit xëyul xëy rek nekk ingénieur nit xëyul xëy nekk rek nekk nekk nekk nekk journaliste nit xëyul xëy xëy nekk ministre nit xëyul xëy nekk directeur nit xëyul xëy rek nekk grande commerçante am na ay jaar jaar yoo jaar di ko jaar étape par étape ba egg fi nga war a egg. Mhm. nit ku nekk su eggee fii ci 1000 dafa bëgg egg na nekk 2000. Ah, waaw ba yàgg mu nekk 3000 ba yàgg mu maa ngi nii di janeer bés bu ma nekkee du ma dem ci milliard milliard sax bàyyi leen ma wax rek bés bu ma nekkee millionnaire. voilà ah, ah man nag noonu nag man boo nekkee millionnaire moom nekk nga ko. parce que oh, xam nga luy millionnaire. millionnaire non non. ban xamaloo ma dara. non nekk nga millionnaire. ah ci oh, lan eh, ci lan nga ko teg maanaam denc naa benn million loolu nga bëgg a wax. benn million sax nekk ko millionnaire mais soo tëgg dencee ñaari million am nga nekk millionnaire. mais mais mais eh, ma dara bàyyi ma ma ñaan sama <laughs> ñaan rek. ah mais jéem compte woo ay ah, ah, soxla Linguère ah, bisimilah ak bi muy macha allah ak bi muy def appel vidéo ci kii ba fële. yi ko manti ak mi doon jox noonu. man ngeen man bëgg ma yooyu yëpp gis naa man ndox ko ba ma teelee noppalu xam ne kii day bind kii maas <laughs> ma daal di toog fii ne pat jàpp sama ñàmb. xam nga euh, ndoo indi na lu am solo lu am sama xarit bu bees bi sama xaritu xol maa ngi lay nuyu gis naa tabarkalla bi macha allah. ñaare fu xarit bu bees amee mës na noo bàyyi benn ba mu màgget bisimilah. ah mais kaay nag ma la dara fii nag ku fi matul li nga doon ñu teggi la teg nee de <laughs> jàll wuti leneen. kon ay ci sa amu fi taawu aayoo. <laughs> piririm pimpa. Ah. kenn amu fi jotam taa bi dafa <laughs> eh, xam nga loolu dafa indi lu am solo. Uh-huh. ndeysaan borom bitigu mbagg boo seen muy dem. Uh-huh. boo xaree xol ba cantine nga fay fekk wala magasin grossiste. Uh-huh. macha allah kenn ku nekk ca la mu nekk bëgg na caa yokk bëgg na caa am leneen. amiin waay. Euh, ndooy wax sànq lu am solo yaa ko njëkk a wax sax lu am solo. Mm. nga ne gars yi xëy na juddu bi rek la ñuy gis mais judd or la borom a koy poli. Mm. xam nga légat yaa nga ëppante ca law ba mais yàlla rek kay maalaw. te boo xool kenn ku nekk am na fu mu jógee am na fu mu bëgg a dem waaye bu fa yeggee am na lu mu bëgg a doon ndoy baan indi lu am solo mu ne asaka ji ngay génne di koy jox ka ca àll ba di daw ay kilomètres. Mm. romb sa miin na daan doole. Mm. romb sa chauffeur romb sa gardien te mu la ne bàyyi nañ it yu ñu fajagul seen kër. say dëkkandoo oh. nga romb sa ay dëkkandoo. waa bala ngay jàll ci dëkkandoo yi am na mbokk moo bokkal menn maam am na mbokk moo xamante ne tey su dee woon nga yendoo dëj. dëgg la waay bu dee jigéen nga kol bu dee góor nga xëcc sa dara teg ca sa koppati. ak ma d'accord. moo ne da nga koo romb nii romb ko jàll. maanaam lu askan mën a foor foor foor am nga mbokk bu amul waaye mais xam nga bu yàlla yemale woon cër yëpp ñay gedd bosam ci àll bi ndax xam naa ne ku ko ci ëpp dooleet ma ëpp la dayo waaye teewul yàlla da koo jox la muy dunde jox ko lëg ci biir àll bi. Mm. ñu bokk fa dëkk. Mm. bu ñu demee bay na paajantente rek belaan lay tudd tuddatul leneen. kon kenn ku ca nekk am noo ko war a tegalee ba nga xamante ne foofa lay yegg. Mm. am nag ñoo xamante ne comme li ndooy wax rek bëgguñu. Euh, Assane Ndiaye daf ko wayoon. mu ne garab ca kaw lay fekkantee nangul loolu dëgg la garab goo gis gu nekk rek ca kaw lay fekkante mais garab bu la sutul du la may ker mm, mm, mm. xam nga lu tax man su ma la nee jàkk xool la yow mii sa jikko neexu ma ma dugg si sa kër gis la comportement bi nga am gis la nga toog ci digg kër gi yow jeeg bi yor sa làmmiñ def ko ne taas baar nekk nituk ferme ñeem def ko ni jël sa làmmiñ def ko ne taas baar nekk jeegu ferme ñeem noppi lu ñaaw rek ngay dagg di teg. subhanallah di belengal rek. bawoo kenn. Mm. man ci sama bopp maa jël ndànk samay bagages wutiwaat feneen. Mm. Eva dafa am yoo xamante ne duma ko xuloo ci Ndakaaru du fi xuloo taxi zone noire. benn. jeeg bu sëy batas jalub fëgg jaay jànq buy wër liggéey ponkal mu yor dooleem te fas yéenee daani ko du ko xuloo kenn ci Ndakaaru am na fi foo génnee gis beneen. su ma ñëwee di ko wut si ci yow mu wóor ma a yow mi doo patron bu baax du ma yàgg ci yow dëgg la xam nga lu tax ndox musta baax yàggam yàgg ci taal baa tax mu jël jikkoy taal ba maanaam xala ko jàpp koo bëggul di moom bul yàgg ak moom oh. du ma nangoo nekk ak yow nga di ma yónni ma di la xeexali du ma nekk yetu xeexukaayu benn patron lépp ci jànq lépp ci jànq am na jànq yoo xamante ne dañ leen di yónni ñuy xeexee di leen yónni ñuy xuloo ji su may xeexi ne sama jànq jógal takk ñu ànd du la ko defal parce que damaa ñëw pour daan si sama doole mais daan si sama doole boobu ñàkk jom indiwu ma ñàkk fayda indiwu ma du ma dikk nga di ma dugal ci benn musiba boo ma warta dugal mm. mais ndoy baan li may bëgg a wax yaa ma ko gën a xam ndax daj nga ci dajate nga ci tem nga ci temati nga ci mm-hmm. jànq ji nga xam ne seen yaay yi demuñu dikkuñu ña nga ca dëkk ba toog mm. waaye am bañum rus lool am lu ñuy jomb lool ñu tàggu seen yaayee ñëw ndakaaru ne ñu ngi ñëw liggéey si jànq mm-hmm. ñu ngi ñëw liggéey si ci yenn usines mm-hmm. nekk ci ndakaaru gii di ko toj ak bari di ko ruube eh, di ko rëbëje di tëmbaaje di fëlaale di sànneeku fëlaale sànneeku nag yàgg-yàgg daanu dee rek mm-hmm. seebi seebi moom dee bi dee bi rek a ah, ci waaw ah, ah, loolu moom loolu moom Eva loolu moom man maa koy li naan gaa yi naan validé ah Cheikh Faye Cheikh Faye digital ñu ngi koy nuyu validé nga ko caché waaw parce que mm. no dafa bari ay xale du dëkk ba rek de am na ñoo xam fii ci ndakaaru bii leen dëkk. mais génn ñu bari fi bay bëgg a dee. waaw maanaam dañ naan kër Eva laay liggéey waxoon naa ko ca njalbeen doguma la ku ci jóg di liggéey da ngay xool lan a tax a jóg. macha allah. nga tàggu seen waa kër ni da liggéey par 15 jours ngay wàcc. Mm. tàggu seen waa kër ni da ngay liggéeyi par mois ngay wàcc. Mm. fekk yéen a ngi ci benn appartement. Mm. nekk fa ak sa ay copines. allo allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam wa ñu ngi lay ziar sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. ziar bu wér a ngi lay dégg allo. Ah, allo Eva eh, Tra. naam. ça va maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. tey moom thème bi ngeen génne moom moom thème thème bu thème la daal maanaam. Mhm. dëgg la. allo. allo ñu ngi lay ñu ngi lay dégg bu baax et parfaitement. ah saa bu ngeen wootee mën ngeen a wax léeg-léeg daa ngeen foog ne dégguñu leen waaye ñu ngi leen di dégg ndax góor gu baax googu nu ngi ko doon dégg. Eva dégg nga ñu ngi koy souhaité bu passé une bonne journée dañuy nekk benn appartement loué ko nekk nekk fa juróom wala fukk. waaw. suñ ñëwee fi ñu liggéeyee dañuy jël téléphone bi woo seen yaay. waa paas ko kenn ci seen copine ne ko xaar ma paas la sama patron bi. Ah. waaw. jox jël téléphone bi jox seen benn copine copine bi waaw maman ça ngeen def sa doom sama kër lay liggéeyee nangam gi nangam incha allah dina ci am jàmm wax a wax a wax ba dalal maire bi ni ko nag man maa ne ko muy ñëw muy wàcc par weer wala muy wàcc par quinze jours maire bi day jàpp ne doomam mi ngi ci kër di liggéey nekk doom nekkul ci kër di liggéey mi ngi ci benn bërëb wala benn appartement wala fenn ñu nekk fa di jaay seen bopp. ci yàlla su 15 jotee ñu wàcc dem lii may wax nii nag instant bi man mii dama cee am benn xale bu jigéen bi xam naa ne fii ak semaine da ngeen ko dégg xalaas. Mm. xale bu jigéen bi ci boppam moom moo ma contacté expliqué ma ni ma man loolu laay def. dëgg la dafa amoon jëkkër ba divorcé ñëw Dakar di fi wut liggéey liggéey bi metti mu am ay copines yu ko dugal ci loolu mu ne ca. Mm-hmm. instant bi ca loolu la ne. ñu ngi wax ak moom pour mu jéem cee jógee ak yooyu ndaxte dund gi bu maanaam moom li muy yónnee chaque jour mooy yónnee dépensé dëkk ba maanaam heure bu xëyee su yeewoo li muy njëkk a def mooy yónnee 3000 dëkk ba chaque jour man ñu calculer ko man man ko 3000 fois 30 jours ñaata la. mi ngi ci 300000. voilà man ko sa yaay war nag toog xalaat. non non non 3000 fois 30 jours c'est 90 000 90 000 dégg nga. Mm. 3000 francs lay envoyé par jour chaque jour su xëyee dina yónnee yaayam 3000. Mm. Mm. chaque jour chaque mm. jour. mais loolu xam nga loolu liggéeyoo liggéeyu jànq. Mm-hmm. sa yaay su muusoon te xam Ndakaaru dina xam ne liggéeyoo liggéeyu jànq. Mm-hmm. fooy jëlee chaque jour trois mille fii ci dëkk bi. noonu la ko nekkee mënuma loolu lii may def nag. pour di ci dimbal lii waa dëkk ba su ma ci su ma ko arrêté waa dëkk ba duñ xëyee duñ lekk. man ko nga bàyyi li ngay dem wuti te te moo ne nag moo ne nag fóote ngi fi passé ngi fi. waaw man soo fóotee defe naa journée bi lu tuuti tuuti da nga am junni. dégg jeeg ba ma ah. tasee loon mu ne ma. jonga ma ndax doo ma jàppale foofu damaa teg njaboot ga ca kër ga te yoruma lu ma lekk xaw ma la nag lan ma ne ko fóotum junnee nga sama kër dootuma ko defati. dañu noonu at bu ne nag metti na la ndax at bu ne nga nettali ko. <laughs> lan ma wax ama nag. macha allah ay ca ndoy bar. dégg bi ma waxee bi ma bi ñu waxee loolu ñu waxtaan ci man ne ko man ko ñaata ngeen foofu mun ma sett lañu. ñun ñëpp loolu la ñuy liggéey. maanaam juróom-ñaar suñu xëyee dañuy toog ci appartement bi wala ñu dem ville. solo ba càkk-càkk nekk ville ou ñu nekk ci tali bi mel ni kuy dem Dakar fekk demuñu fenn suñu xëyee ñëw toog ku nekk xool li nga génne li nga yor. su gudd jotee ñu ñëw ci boori almadi gi doxantu xam nga rek mel ni koy stop bu waxtaan bi neexee <laughs> noonu jël seen numéro fekk ñi ngi ñi ngi seen ay appartement mhm. donc léegi nag seen yaay dañu yaakaar ni ñi ngi xëy di liggéey fekk liggéeyuñu te loolu nañ ci def attention bari na ba ci élèves am na ci ñoo xam dañuy tàggoo jàngi mhm. te duñuy jàngi fekk dañoo looyee fenn mhm. su wàcc jotee ñu wàcc dem toog kër ga su xëy jotee ñu xëy dem fekk jàngiwuñu mhm. donc parents yi tout le temps su sa doom euh, ne lee maa ngi liggéey Ndakaaru fexee la xam ci ban kër lay liggéeyee beneen bi mooy Eva xale yu bari yi nga xam dañoo jàng ba am ay BFEM am ay egg ci ay baccalauréat ñëw Dakar di fi wut si liggéey ñu ci bari suñ toogee ci trois mois balaa trois mois yi jeex dañ leen di ëmbal ëmbal yi ñuy delloo dëkk ba ah. waaw doom yi bari ñu nga dëkk ba doomu gaa yi ñu bari ñu nga dëkk ba <laughs> doomu gaa yi non doomu gaa yi dégg naa <laughs> waaw parce que xale bu jigéen bi day jàng mm. ñëw Dakar mm. musta ñëw Dakar mm. gis seewoon Dakar bi topp rythme Dakar bi mm-hmm. xam nga ba ba ba ba différentu ba ñu ëmbal ko fi école ubbi nga war a dellu nga egg rek biir bi feeñ ci yàlla ci yow minoo Dakar xam nga ku la ëmbal des fois nga man gis naa koo xam ne ci wàllum santé lay liggéey ca yàlla ah defoon ko benn xale bu jigéen bañ xale bu jigéen ba dafa bàyyi foofa dem ci beneen kër kër ga mu doon liggéey nag ñoon ñoo ko dimbali bi ko ñu dimbalee explique ko lépp ñu ñëw fii ci télé bi ànd xale bi ma dem ba wax ak xale bi mun ma ban la ban man ko ban kër la mu explique kër gi man ko nañ dem ci kër gi ñu dem mun ma fii laa doon liggéey man ko est-ce que jabar ji yëg na ko mun ma jabar ji yëgu ko ma daan koy dugg ci kër gi daan ñu waar femme bi xàmmee ma man ko diw laay seet mun ma wàccagul man ko ban heure lay wàcc ko mu wax ma man ko su ñëwee fi su ma woo bàyyi ma sama numéro ci guddi gi waa ji woo ma woo ko ci téléphone ci sutura ñu daje quelque part ci sutura ma indi xale bi teg ni ko kii nee na yaa ko ëmbal biiram bi te sa kër la doon liggéey su fekkee yow la jëlal say responsabilité nga xool noo koy gérer. Mhm. mais mais kilifa nga dëkk bul daw say responsabilité mhm. mu jël ay responsabilité ah xalaas. élément ah, xalaas. <laughs> allo. dëkk bi dafa toog. allo. allo ngi lay delloo ziar yow itam ñu ngi lay ziara bu baax. yaa ah tey de naa ba ma duggee. macha allah. maa ngi jaare sama xarit. ndeysaan sama idol mami Linguère. ajaali wuyu. maa ngi lay fay bu baax. mami sama soppe nga. sant yàlla wuyu ma man man fépp laa la def ci man. bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg meew ma la. yow est-ce que du ma ñëw yendu seeg yow tey jii. yaa ngi sant yàlla ba lay saan boo waxee sama xol bi day sedd ba mel ni galaas yàlla yàgg wax nga di ko dégg waaye am waaye kontaan naa torop mm, ñoo gën a bëgg tey de moom affaire bon yooyu ngeen di wax man si laay liggéey mhm, dëgg la waaye man moom sama patron jag fut mhm. koo xam ne na lépp loo bëgg suba ba jant soow mu def mu def ko macha allah mhm. boole la ci boppam. Mhm. macha booy dem xew sax mu ne la tàggal sama yére yu la neex nga sol. Mhm. boo bëggee diw mu ne la jëlal nga diw. Mhm. macha allah bañalu la dara dara dara xam nga ne kooku moom kon royuwaay la. dëgg waaye yow moom mami ku lay déglu du juum. ndeysaan ku lay dégluwaat dina respecté ay waajuram. jërëjëf man de. bu ma duggee si lii. Mhm. pour teral sama yaay moo ma tax ma dugg si. yal na la ko yàlla yombal. pour sama yaay dong ak sama mag bu jigéen ndax aw ma ku dul ñoom. Mhm. te dama leen te dama leen bëgg lu ma mënta am sama àdduna ñoom ñoo ma ko gënal. waaye yow moom da ma neex torop daal. waaye ah, yow daal yow nañ ma jëlal sa numéro nag. Ndoye Bane moom lu muy wax ci xalaat bi moom kenn kenn kenn kenn kooku moom dafa jëlal jànq yépp paar moom. mooy seen avocat. Ndoye Ba moom mooy suñu avocat moom. waaw. Ndoye Ba moom suñu waay la moom. suñu waay lay ndeysaan. man nag dëgg yàlla boo soxla woon naa sa numéro. nañ ma jëlal sa numéro régie. ñun daal dañu laa sopp rek te yàlla tax billaay ndeysaan waxkatu yu baax yi ñun ñoom rek lañ bëgg am na ci xale yàlla na nga yendoog jàmm yàlla def barke ci yow am na ci xale yu baax xam nga yaa ngi wax barki démb ne nañuy nañ delloo njukkal waaw dañoo war di delloo njukkal ci patron yi waaye dañoo war di delloo njukkal itam ci jànk yi mhm. ndax Eva am na ci ñoo xamante ne nii tey lu patron ba am na ni ginnaaw yàlla sama jànk dëgg ndax soo mënee yendu àll dëgg la mën a fanaan àll te tiitoo rafoo ak njaboot ak ni mu saxee ci xol. te muy dëgg ka nga bàyyi ca biir kër ga la. Ah, sa waa kër ngay lekk. sa waa kër ngay naan ña ngay toppatoo sa njaboot ña nga leen di tëral heure ña nga leen di yëkkati heure mhm. ak jamono ni mu rëb a joowee ku nekk xam na ne doom daggitu res la mhm. soo ko mënee jël teg ko ci loxo nit kook moom c'est parce que ka ko bàyyeel sa xel dal na ca moom dëgg la jóg kon ñooñu dañ leen a war a delloo njukkal mhm. am na fi jànq joo xamante ne tey yor nañu ay nit ba ñooñu yor ay jabar bu ñu delloowaat leen jukkal ci biir kër ga am na fa ñoo xamante ne tey yor nañ ay doom ba doom yooyu tey dem sëyi ñu delloowaat leen fa njukkal mm. am na fi ñoo xamante ne nii nee naa la dafa am boo xam ne dafa ma marqué mooy ndey ñi fóot fóot mi sooda ah, bu sama sooda bu mi ñu ngi koy nuyu noonu la noonu la mën a mel nag xam nga faas mhm. ay nanditee fa ne amul cuune rek la mën a mel sooda bu mais dal Elhadji Keita ak Bin Fall xam naa ne moo dal sooda ak kii da daawul fay ndey ñing ndax xam nga jamono jooju. yóbbuwuma foofu dossier xam naa yooyu la woon. <laughs> léegi dégg naa El Hadj Kayte mi tamit fay bin faal fiiri bi mi nekkee suba gi moo waral mooy ko way wu réew yi. macha allah yooyu dafa dafa am solo dafa neex. yi nga xamante ne nii ñi ngi ci biir kër yi. Mm. nañu xool xam ne lii benn temps la. dëgg la nee la dafa am jigéen joo xam ne man dama ko sopp dama ko naw. Mm. du la muy waye tax bëggam bëgg sëriñ Fallou bëgg naa ko ca. waaye jaar-jaaram ak ñeme gum ko ñemee wane. ak gëm gum ak ak ñu dama ci damay damay seppi benn boobu noonu. dëgg la pour que ñeneen ñi mën ci xool. dëgg la dafay taxaw mu ne man jànk moo ma indi woon. dëgg pour mu ñëw fa Ndeye Diouf de. Ah, dafay taxaw mu ne la man jànk moo ma indi woon Dakar. dëgg la moom ci boppam. ma yor sama rakk sama yaay gaañu. feebar ba gaañ ma yor sama rakk. ndeysaan di jóg di daanu di ci liggéey ba tey macha allah mi ngi sant yàlla. fula ak fayda kaay ma moo ko ko may kaay ma wax na ni dooree na sax leneen waaye boo amul fulla amoo fayda doo ca génn man mami àdduna lépp pas-pas la. dëgg la lépp pas-pas la gis nga boo woo amee pas-pas ndoy baan métier woo gis te kenn ko mën nga caa dugg ndax di nga sottile mhm. waaye boo dooree te amoo pas-pas ca ngay dëkk nag wax ne nit day nekk tey jànk ñaan yàlla la génn ca. Mhm. xam nga damay faral damay toog fii wax ah? damay toog fi di la tooñee ne la. waaw soo demee ba opté nekk tuurkatu ndoxum lalu guddi. na mook boo xëyee bu tooyul wool sapeur pompier ñu may lab citerne <laughs> na tooy xepp mais seede yi bëri na loo dem ba opté doon na ko mat mënoo ko bako dëgg la nit ki day gëm li muy def macha allah gis nga bu ñu demee ci fajkat ya mm-hmm. am nañu jigéen ñu ñu fay sikk ñu toog di maquillé woo ko faaru xam nga lu leen fa yóbbu dañoo wër ba amatuñ fu ñu jëm ñu ne naa ci dem mais ko ko bëgg dëggantaan bu xëyee tal tërëddub crayon ndax xolam bi liggéey baa ca nekk nga dem ca jànq yi am na ci ñoo xamante ne nii kër gi waañ wi dugg bi génn bi ak leneen moo leen gënal sax ñoom seen jëmmi bopp yi. waaw te te gis nga ma mami dugg nga dugg nga ci lu ma yàgg wax te dama ko gëm. amaan na ñenn ñi kontaan ci amaan na ñenn duñ ci kontaan damay wax ne ba ña ca mbedd mi bu ma leen rombee du ma leen jéem a jugé. Mm-hmm. ne gis nga àdduna ndoy baan dafa bare te compliqué te bare ay mbir te kër yi xumb kenn xamul la ca xew. kenn xamul ku ci ne la mu nekke moom dong moo ko xam te yàlla rek doy na ci jugement macha allah. am na mu ngi leen di ñaanal des lendemains meilleurs. am ñoo xam ne ñoom seen bopp. waaw boo toogoon ak ñoom wax ak ñoom. waaw ñoom ci seen bopp sax li ñu nekkee. xamuñu ñoom lan la mu ngi leen di léeg-léeg nag ku mel ni Eva. da ngay wax ba mel ne yow ci sa bopp yow saint nga muur nañ la yow daal yonent nga. moo tax yàlla na yàlla gaaw rek di nu Seexul Xaddim suñu yaakaar yi tey ak ëllëg ji def ni woon boo xëyee ci say ay ba ngoon jot doo matal bay gont ci jàmbur tiig laa dëgg yal ko yàlla doolee fayal man la may wax jigéen muy xale yeeg ñëpp ñuy jàng jàng nekk ci kër yi di liggéey jàngum métier daal baax na am ah, métier nee na bën su dee métier kër na mokk su dee mm-hmm. togg nga mën mm-hmm. na togg nga neex su fekkee fobeere nga mën dëgg la baax ma tey jii man soo ma gisee ma toog ci tele bi di wax da nga naan Ndoye Bane lii muy liggéeyam mooy métier mais sama métier liggéeyuma ko xanaa sama wàcc sama kër laa koy liggéey. bare na fi nit yaa nga fekk. fekk juriste ba e, e, nekk assureur assureur ba nekk leneen. ma ngi nii am na beneen métier moo xam ne du dul lii muy toog di wax. ko bu ko yëgale waay. waaw xam naa ne koo sopp la. waaye def ko profession wax rek. <laughs> non non eh, sama mi nii. da koo xeeb. xeeb bi alaa xeet kut sa jéeg ji soog a dugg ci sëy ah kut sa jéeg ji soog a dugg ci sëy hmm. laay liggéey waaw kut su jéeg ji ak xeetu mbere mbese yam war a àndal baax baax ya xoola yi ruqka yaa ngi sori ya léegi nag léegi nag mu ne course leen métti moomu mu may ndawalal loolu il faut nga ci mën a gérer kër jigéen ah, day mën a gérer kër te gérer kër nag ca borom kër ga la tàmbalee ba ci doom yi mais yéegi jigéen ñi soo leen gisee jànq yi yab leen di nangu seen jëkkër yi gérer leen seen manaam da ngeen doo gérer seen kër yi. am jogo may waa waa Facebook nee nañu. Euh, ñu ngi ñuy son bi daal doy na waar. au niveau de Facebook dégg nga. peut-être aussi ci yeneen télé yi. Euh, d'accord dégg nga. Euh, au ñu gérer seen kër ku mu commencé seen jëkkër jaar ci xale yi. maanaam yéen a ngi ci cos comprendre nga lu wax mais dañuy bàyyi la ñu war a gérer la ñu war a coacher jànq bi ci boppam di leen di coacher monsieur di coacher les enfants. yow nga nga yor nga naan nga naan taluma ko ndax wutub dërëm ñi taluñu ko ndax fiir xam nga fiir. fiir fiir fiir fiir fiir fiir fiir fiir ba. ba mu ëpp dina tax sax yow soo taajee añ sax. da jànq bay taaje mooy gën a neex te sedd ka yow na nga caaje taaje jeeg bu fiir dafa am ndeysaan xam nga looy xoolee ba mm-hmm. jànq bi di taaj ah mais <laughs> ah, ah, mais jànq épis puis et puis bàyyi leen di nax seen jëkkër yi dañuy nekk ca waajo mel ni ku togg fekk jànq baa togg su taaj jotee ñoom daal jéego taaj la moom jéeg jéegu taaj jotee nga ñëw taaj lal daal di taaj sa jëkkër yaakaar ni c'est c'est que jëkkër yi ni ñuy dem di waaj di xooñu di xool ki togg oh, kan la non jaru ko ndoy baan Eva yàgg na la ko fi wax jamono moo soppeeku jànq baa togg ba mu neex nga ñëw naan jamono moo soppeeku su ceeb bi neexee daal su ko jànq ba toogee demal ci jànq ba ni fa ceeb bi neex ndoy jamono jamono moo soppeeku dara jéeg bi am na liggéeyam mi ngi dem di liggéey ah. su góor mënee tabax waaw jigéen mën a raax waaw doom ya ñëw peinture kër ga yaañ waaw léegi après jamono toll na foo xamante ne ni benn loxo yoratul kër. Ah, kon kay su jabar ku sa jabar dee gërëmal jànq ba. Euh, jànq ba la doon jox même soo gërëmee soo ah, gërëmee jànq bi tey di ko xarab bu subaa xam nga lu ah, jànq bi dafa ñëw di liggéey si lu mu yóbbu këram. waa la mu bëgg kërëm su fa nekkoon moom du ñëw di liggéey si sa kër. waaw moo tax mu ñëw di ko fa liggéey si. waa jànq ba ëllëg dala fay bàyyi dem feneen. waaw sa jabar moom tamit xam na ne yow li nekk ci biir kër gi su ko mate woon moom du génn di dem di ko wuti te li muy wuti dara romb ci kër gi kaay nag ma yëgal benn benn secret boo ko yëgul ñëwal jéeg ji fii liggéey yëpp ñooy fay seeni jànq mm-hmm. du ñëpp de ñi ma ci xam. voilà ñu ñëpp de. ñooy fay seeni jànq. du ñëpp kon jànq boobu yow. yaa ko indi bi c'est très c'est très normal ko parce que yaa waroon a togg toggoo. yaa waroon a fóot fóotoo yaa waroon a paase woo yaa waroon a lépp yaa ko waroon a def defoo ko ginnaaw defoo ko kay ki kay def yaa ko war a fay. jamono moo fa tollatul. la ban mooy jamono ku nekk da ngay ci sa jamono. jamono fa mu nekkoon la nekk yéen a bëgg a soppi jamono ji yow yaa waroon a togg toggoo di nga fay ku togg yaa waroon na defar kër gi defaroo ko di nga fay ku ko defar. jërëjëf mbokku téléspectateur yi xam naa ne ànd ak ànd ak lu mënti am daal nañu jàpp ne relativiser alléger ak dédramatiser dana yokkal euh, euh, dana defar sunu nekkin ci société bi ca kër ya ñu xool ya nga xam ne mënta ñàkk ñu dénk ko madam ndax madame itam moo ko moom. ya nga xam ne jànk yi ñoo ko moom jànk yi moom ko ya nga xam ne xale yi ñoo ko moom mm-hmm. xale yi jël ko macha allah noonu la rek ne jamono itam newatul fa mu newoon léeg-léeg dinaay dégg ñu naan xale yi tey dañoo am chance dañoo am ah, ah kay seen chance la waaye nanu fexe ba chance boobu dikkee leen lu baax mm-hmm. te li ñuy wax xale yi ñun itam dañu koy teg suñu bopp ne suñu jur yi ñoo ñu gënoon a sonn ñoom amuñu woon ferraaru passé amuñu woon seen gazinière amuñu woon micro-ondes mm-hmm. seen frigo seen loxo bi lañ ko daan defee te barke jamono jooju amoon na nañ fexe ba nekk ci ba euh, jamono yooyu macha allah te dara weesagul saa bu nu xëyee rek mën nañoo gën a defar kon bokk Abdoul Aziz Fall yow itam dañuy ñëw régi ne la salaamaaleykum si wetam ndax am na jànk yoo xamante ne liggéey taxu leen a jóg dañuy ñëw di seet nag yi nga xam ne amuñu benn souci mhm. mhm. tamit baax mhm. moom boo bàyyi say parents si àll ñu yaakaar si yow takka sa ndigg li waaw yow ak nii nga mel nii est-ce que patron yi dinañ lay nangoo jël waa ñi gëm seen bopp patron yi am classe patron yi xam ne ay patron lañ patron yi nga xamante ne bu ñu xoolee ne ñoom ñoo dem si pàkk ba jili jànk indi ko sa kër nga koy liggéeyal waxaale ak moom fay ko xaalis hmm. kooku jànk bi mënu laa yëngal hmm. nu mu mënta am rek boo xoolee ne kii sama xaalis la cinquante mille laa koy fay par weer may gagné un million fi may liggéey hmm. jànk bi warul a déranger ñooñ ñooy patron léegi lan mooy seen problème ñoom jànk yi ak euh, lan mooy seen problème parce que coow ci kër yi patron yi la patron yi nga xam ne amuñu place dañuy jóge dëkk ba ñëw Dakar see bi dugg leen ñu fay am xaalis ay ah, yore seen kër wala yàlla woo sëgaleen jëkkër ju am ñuy ut jànk doo gëm sa bopp taayal salte toog jànk mooy def tout sa place toppatoo ba toppatoo sa jëkkër léegi nag yow jànk bu melee neen sa xol du ko mën a supporter ci obligé nga jalouse mm-hmm. waaw mm-hmm. ok ok d'accord léegi ñoom ñu ngi leen di fay à temps yéen soo leen fa nekkee di ngeen lekk di ngeen naan est-ce di ngeen tëdd fu normal. waa man moom du ma xaar fu ñu may toroxale. Mhm. Mhm. ndax yor sama doole yéena la ko man su ma lay liggéeyal xol bu rafet laa lay liggéeyal ko te damay bëgg man su ma lay liggéeyalee li ma lay liggéeyal sa xol bi sedd. Mhm. mais man du ma xaar ma ñëw ñu jox ma waañ ne ma fanaanal man sax dama bàyyi fanaan. lu tax moo rappelé woo benn yoon laa ko mës a def immeuble kebe bii la woon téye doomu naa à loolu duma fanaan si kër patron mhm. waaw ndax risque yi nekk xamoo ñi ngay fanaanoo yenn genre nit lañu xamoo ay borom dox ko ci guddi lañu xamoo daal mhm. mieux nga liggéey daal wàcc huit de temps yi mët nga dem tëdd mhm. mais jànk daal conseil wu ma la ngay dem ñu lay jox ay desitu lekk wala ñu lekk ba pare jox la desit wala ñu fanaanoo la si waañ bi wala ñu lalal la ay sër ci suuf non ma dégg ñu ni loolu amatu ba léegi mi ngi am. waaw mhm. ah, ba léegi mi nga am. Mhm. ndax man sama rakk dem na di liggéey mooy lalu suppositoire yooyu. Mhm. xale yu njëkkante yéeg si yéeg si suuf mu des si kaw patron bi mu ne ko yow mënoo yéeg si kaw parce que da ngay tiim xale yi te wóorul mu dem génn ko mooy mbaaj yi ñuy paase pour mu tëdd kooku ne ko du ma tëdd fii. patron bu woom si guddi gi mu ne dafa wax du tudd ma ne ko parce que wax na dëgg ndax lan la bàyyee fii mu jóge mhm. bu fekkee amoo foo koy tëral te amoo fu muy tëdd bàyyi ko mu ñibbi si mu tëdd mhm. waaw mais wàllum mu defar néeg néegi néegi patron yi seen néegi ñan ñoo koy defar yéen waa jànk ñoo koy defar parce que amuñu jot mhm. yow daal yi ngay xëyee pour liggéey sa sebon moo la koy nettoyal amoo jot sa dara yeeg silif yeeg yëpp si kaw lal gi lañ koy bàyyee ni ngay fanaanoo sa jëkkër yow noonu ngay jógee nga dem te loolu sa secret la sa biir chambre à coucher sa secret la. Mm-hmm. jéeg moom loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti war nga mën a régler sa réveil nga yeewu préparer defal sa néeg lal sa lal ne jànk bi andil ma euh, mooy yi ñuy fobeere léegi nga fobeere sa chambre tëj sa néeg dem liggéey. Mm-hmm. doo bàyyi sa jànk na moom am ak sa néeg di la sa armoire ba xam fa sa denc lépp lépp fu mu nekk mm-hmm. boo liggéey bu la roñee ba nga set yow yaa sa jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi remercier jongoma boobu ci élément bi nga xam ne tax nañu am ko waaye di wax itam joyeux anniversaire à notre cher ami ki nga xam ne mooy ami ami Ndiaye lay wax sax ami Ndiaye fële ca amitié sunu soppe boobu nu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire di euh, njabootu ba tey maam Kuna maam Kuna Bo macha allah sunu yaay ju baax jooju Adja maam Kuna Bo yal na yàlla may ko gudd fan. joyeux anniversaire à Jëmba Dia. madame madame Fall moom itam doomu ndeyu Ami njaay la kon bokk yéen ñaan ñëpp fem mi ngi leen di ñaanal askan wee ngi leen di ñaanal mhm. ndoy baan kii itam wax na wax yu am solo mhm. ma jot itam ci sama téléphone koo xam ne nee na euh, wax dëgg yàlla Eva li ngeen di waxtaanee yëpp d'accord naa ko mais nañu jàpp ne léeg-léeg itam dëgg-dëgg jànq yi am nañu sikk moom wax na loolu mhm. xam naa dama ci yokk jànq yi am nañu sikk patron itam kenn du ñoom ñu mel ni Eva macha ah am na keneen ku ne les temps ont vraiment changé. la la so nee ko le soleil se lève toujours à l'est depuis bi mu juddoogul ba léegi. waaw depuis man bi mu juddoogul ba léegi. Ah. léegi far la temps bi changé temps bi musul changé. Hmm. nit ñi ñoo changé. Hmm. waaw depuis que le le monde est monde le soleil se hmm. donc lan moo fi changé temps la wax. temps bi changé wul nit ñi ñoo changé. nit ñi ñoo ñii ñoo ñii dañoo bew. ñii ñamal yàlla waaye waaye nag baan wax boobu moom ñii di wax boobu dana yombut lool ndax xam nga ne fële ca avenue Blaise Diagne ca ay tàng waaw moo tax ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, euh, sunu ñaari wayjur yi euh, El Hadj Bey ak El Hadj Gay gis nañ leen ci semaine bi boo toogeek mag ñi buñ la dee wax ndakaaru gu njëkk ga mhm. di la wax gël tàppe nu mu meloon mhm. fële ca ngaraaf fa ma juddoo ni mu meloon mhm. wallahi da nga xam ne les temps ont changé non non loolu du temps loolu ah. du temps kon ah, su fekkee ñoom dañoo bëgg a kon les temps sont sans euh, sans temps yi boobaa jamono ji dafa dafa soppeeku lañ bëgg a wax kon kay nañ accepter li xew rek ku ci sa jàng ku ci sa ku ci sa jëkkër takk sa mbindaan nga ne ko mi les temps temps yee jamono soppeeku rek moo tax góor ñi di xool mbindaan yi di leen takk. waaw nañ ko jàppee nañ ko nañ ko wér foofu rek mais way kaay li tax góor du xool jànk takk ko. waaw jànk nit la fa la njëkk fa la ñuy tënk waxtaan bi ba xam loolu daawul am. ndax lan daawul am i waxi xale nga wax non non xoolal daawul am soo gisee ñu ne dama ne daaw soo gisee ñu daawul am mooy bariwul woon dama ne comme ni mu fësee nii ba laaj laaj ma fu noo fu yemale mm-hmm. waxtaan boobu mm-hmm. nañu wax ne du lépp la nit di yëg waaw waaye kër yi lu ne am na ci et puis dafa rafetoon sax parce que yaay da ko daan xam waaw ne jàkk xam ne sama borom kër bii mm-hmm. am na bët bu mu teg kii ci biir kër gi miin na daan ah, doole bi yaay labat wala mu rafet wala mu rafetal ko am na ci ñoo xamante ni ñoo déplacé wu dem dëkk ba takkali seen jànq sax seen borom kër mhm. xeetu rafet-rafet bu ne am na fi xeetu baax baax bu nekk am na fi am na fi ñoo xamante ne seen boroom kër sàggan nañu uh-huh. ba tooñ jànq bi ci biir kër gi ñu xëcc jànq ba teg ke seen wet mu wasin ñu jël doom ja yóbbu hôpital ànd ak ndaw sax mu wasin ñu sang ba mu set mm-hmm. laxas tekki seen kaw mm-hmm. tudd yemale kook seen njaboot tey ba doom yooyu ña ngay daagu ca biir kër ga xàmmewuñ kat mooy seen yaay yow itam bàyyil àdduna rek dama ni loolu am mais dama ni mu baree léegi mënoo toog weer woo xam ne gisoo loolu loolu amul léegi loolu dafa bari ah, bari waaye googu mu bari daañ la ko nangul daañ la ko nangul mais bu njëkkoon daan nga ko dégg mais soo ko déggee bala nga koo déggaat day yàgg mais actuellement ni da nga koy dégg tout le chaque jour chaque jour tax léegi laaj ma laaj ma li tax laaj ma li tax ba tey li tax jànq yi dañoo gën a bëgg seen bopp. waaw xam nga bu jëkkaan bu awa di liggéey fenn day am nu muy mel waaye jànq léegi dafay pare. dem ñu ngi koy xaar day pare architecture. et puis booba xale yi dañu gàddu sac bu baax dem fomp bureau dellu ñëw. booba itam booba dañoo pare te jéeg yi pare kersa dafa desoon ci biiri bët booba bëti xale yëpp a desem ndox am amul benn xale boo ci xool mu siggi fixé la ci biiri bët. waaw amul woon te jooja jamono. waaw xale boo ca seen ma ngay daw. ma ngay moytu. waaw ma ngay rasu ma ngay wut fu mu dugg. waaw boole ceeg danaan du ma taseeg tonton. waaw bu nee tëll yem ci moom. day delluwaat ginnaaw. te mami mami kersa mi ngi jàpp jigéen. waaw ah jigéen ko am kersa. Euh, mais jigéen gu bari kersa googu nag la ñuy takk nag. jamonoy ah? jamonoy kooku kii mami di wax kooku la ñuy takk. waaw waaw. déedéet dafay fekk jikko ja. moo leen di neex. waaw ma ne la ca jooja jamono. Mhm. soxna si nekk ci biir kër gi. Mhm. moom moo njëkk a nekk yaay. moom mooy dem labataleli ko. Mhm. jànk liggéey na fi ci kër ba taay soxna si nekk ci biir kër gi takkal ko doomam. takkal ko frère takkal ko jëkkëram takkal ko leneen. ay relation tissé wu ci. ba wu ci ba nga xamante ne ni dañuy takkante ba dem ba kii daf ma doon liggéey sax dootu fa jib dëgg ñoo bokk lii ñoo bokk laa mm-hmm. mag ñi léeg leen nga dégg ñu ne maag diw ñoo bokk nangam nga lijjanti ko fekk seen ñaari maam yaa jàkkaarloo woon ay kër fekk ku fa daan liggéey la booba kersa dafa amoon dëgg xale yi daan ruus daan jomb mm-hmm. mais bàyyi tamit nekkuñu woon nit ñoo xamante ni ni dañoo weexoon bët mm-hmm. novelas gi xewagul woon yenn film yi xewagul woon genn caay-caay gi xewagul woon yenn télé yi amu fi woon. nga ni gën caay caay gi amul ko. ngembul saay saay du tas da koy rek ci tal heure bu gisee maas ga sëgg bëre. kaay leen nu bon borom tàmbaliwu ko tey da ko mottali rek. Mm-hmm. ndax am na lu mu namoon mu doon nelaw ca moom da koo sañagutoon a yee. Mm. yaa ko fi wax keroog yaa ne jikkoy ko amagul du jikko. di mm-hmm. koy ko ñàkk du jikko. am na ñoo xamante ne nii bi ñu ñàkkee. Mm. dañ naan nuut yem ci seen peggub jabar. xooluñu keneen xooluñu jànq bi ci biir kër gi. Mhm. mais bis bu ñu commencé am ba commencé takk cravate mais Fatou et mes chaussures <laughs> mais Fatou café bi dafa sedd dañuy tàmbali di jàngee raas ci Fatou. waaw. mami ñëw ñu jàngee raas ci moom. waaw ñëpp la ñuy dajale yëpp ci benn saako bi xàmmeetuñu bu baax a. loolu problème mu nit la. dañu nga gis femme boo xam ne ba nga koy jëlee dëkk ba di ko indi ndakaaru di ko takk ko ñu muur ko tànk yi xar na xar goo xam ne 10 000 xaj na ci. Mm. mu ñëw fii yow ko góor ki yaaw ko jël bomb ko sang ko ba mu set dugal ko ci néeg bu neex. Hmm. climatisé xam nga muy seetaan lu mu musta seetaan nga koy yóbbu fu mu musul dem. Hmm. ngay teg ci mu loxo bi xaalis bu musul téye nga defar ko ba mu nekk benn indi xa maanaam ko neex a hmm. mu gis ni jëkkëram nga xam nga moom léegi egg na benn niveau bi kooku ngay jox jànq souvent su gëmul yàlla lool da koy maltraité. Ah. ci ñàkk xam àdduna. ñàkk xam àdduna da koy maltraité parce que xamul. c'est que nag soo xamee foo nga jógee nag doo ko def parce que jànq bii ñëw jóge dëkk ba yow nga jóge dëkk ba mm. ëpp nga sa jëkkër ëpp ko ay moyen wala yow nga ëpp ko ay moyen mm-hmm. tax nga soo muusee di nga ci jaamu yàlla parce que yéen bokk foo leen jógee mm-hmm. fii ngay gis nit xosloo fee xosloo bay bëgg dee am jànq commencé di ko def naka su du noonu mm. fii ñi fi am jànq ñëpp am soo ah, ah, fii di am na ku la fii kennal nee na Evan doy baan kenn la waay dégg waay <laughs> ma ko ah, <laughs> wax na dëgg de non wax na dëgg danaa kennal Ndoye Bane. Eva Eva man nit soppe Ndoye Bane bi seetaan Eva Tra deful eh, lool. dama ne àggale yaa bañ man nit dëgg man lañu àndal. Hmm. nit ñu nit nit nit da ngay da ngay dëgg moom gémmañ moom day wax dëgg wala mu wax naka su dul noonu. Hmm. Hmm. c'est que problème bi mooy yéen jigéen ñi yéen a occupé seen place fees ko dell. soo leen ko feesul dell nag am ko ñëw mottali leen la des la ngeen desal noonu. day am ku ñëw mottali leen ko mais man dama contre ki nga xam ne ndeysaan dañ ko jëlee fu sori. fa surtout jigéen ñi. de ba loolu sax yëfu yëfu nit la. Mm. nga jóge fu sore sore sore yàlla di la suturaal suturaal ba nga tollu fenn fi. Mm. yenn niveau yi yàlla may la ci wërsëg may la ci waa yàlla daal jàppale la amoo seetaanu la. Mm-hmm. am ay nit ñoo xam dañoo ñëw pour gagner ci sa gagner seen seen ñaq ci sa doole. Mm-hmm. ni la yàlla wërsëgale. Mm-hmm. yàlla nga ne la kii dee ko fay lii kii dee ko fay lii kii ñooñu respecté woo leen. Ah, ah, tegoo seen seen place nee naa la ànd ba ànd ànd ba ànd jeex. ànd ak ndaanaan a gën ànd ak cuune. waaw déggoo ma. Mm-hmm. ndaanaan day mat sëkk. lépp may baax gis nga leen laa bëgg a xam. yi maa ngi leen di xamal benn affaire. mu di. yéen a ngi sëy di am ay doom. gi nga loo teg doomi jàmbur rek la ñuy teg soo doom. très bien. ku ci bàyyiwul toroxal mbindaan. Mm. sa jaboom dina jóge fii dem Italie ñu koy toroxal te doo ko yëg. Mm-hmm. sa doom dina jóge dëkk ba ñëw Ndakaaru fii ñu koy toroxal te doo ko yëg. sa doom dina sëyi fenn ñu koy tor so gis nga ci koo koo gis ñu toroxal doom fen na xool moom yaayam lu mu lebal nit ñi. dama am sama rakk neex ñuy wax Mamadou Abbas Diop dafay wax mu ne ah. moytul di ree présent wu nit ki ndax mën sa futur ah. ci yàlla toroxal doomi jàmbur wala nga li ngay wax nii <laughs> Eva Eva Ndoye ngi woon fu neex nag ñu ngi koy déglu mooy jéeg bi nga xamante ne dafa jóge dëkk ba moom dafay dem ba su matadee mais Cheikh Abdou Lahad Mbacké daf doon wax naan yàlla nu ko yàlla fayal amiin yaa rabbi moytu leen di ànd ak ku manqué ndax lu mu daggee ci yow ci boppam la koy tay su yàggee nga gën koo matadi ànd ba ànd jeex ni nga koy waxee man baat boobu daf ma neex ànd ak gor dafa neex mais ànd ak ku ah, matali nañ la ku regg démb neex a bokkal tey sama maam ne ma woon ki xiifee ci biiru ndayam alalu àdduna mënatu ko tax a regg mais ki xas ba regg bu moom nag wax du yem ca moom faaw dana ko yóbbu ca <laughs> dafa am koo xam ne bu ma tuddee Charles ko Mbadi moom sa moom day eggale am moom xam na boppam xam nga dafa am ñoo xamante ne nii sàmba dafa nekk ca dëkk ba hmm. amul lu dul benn nag di dem di ko wëggi jékki-jékki ñëw jaay nag bi sa fale ne dugg ko la baan jënd ci pantalon waaw daane nag moom da ciy jënd montar takk ko bi mu ñëwee ba digg pompier mu taxaw naan waa ban heure a jot yaa fekkee waa ji doxee ko ginnaaw ne ko eh xanaa kii du eh, na yàlla nga eh, eh, ki ma woowee tur bi yàlla na dee waa dëkk bi commencé war nañ naan bàcce bàcce bàcce bàcce kii nee na ba sàmba kon kii na ba xam xam nga dafa am ñoo xamante ne bu moom la naar waxoon naka naar eh. dégg naa naar bu sottilee danaan ñàkk a xamoon bu njëkk yàlla nan dee déedéet baadoo la dëggantaan bu tekkee bëggul ku ko xamoon gis ko <laughs> ndoy baan dama yàgg a toog fi di la wax ne la alal lu mu fekk ci nit yokk ba mu des xel ma dëgg baadoo dëggantaan sangee ko meew mm. len sangee ko lem lenkalee ko meew jox ko ndox mi gën a cher ci àdduna bi mu naan nga daggal ko jasneer jële ko fee ca ndari beleel boutique sañseel ko ko ba mu jekk nga teg ko ci fauteuil mu toog boo ñëwee ne ko wecc ma 10 000 ñaari poosé la naan lëcc naan la ma ko yoroon du ma toog fii de baa doo laa naqare jëflanteel <laughs> ci yàlla macha allah ñu nekk ba tey di waxtaanee ñi nga xam ne ñooy mii na daan doole yi nekk ci biir kër yi dëgg dëgg ñu ngi leen di gërëm li may wax ne euh, daaw defe naa ca 8 mars dem naa ci benn conférence boo xam ne la ma fa gën a neex bokk na ci kilifa gi ba mu jëlee kàddu di wax nee na jànk yi yéen a ngi célébrer le 8 mars waaye bu leen ko fàttee célébrer ak ñi nga xam ne ñoom ngeen dénk seen kër yi ne yéen bu ngeen jugee ba mën jot seen bopp di dem seen jug yomb xale yi ne ca jàmm kër ga dal euh, bu ngeen dikkee mën a teg seen saak tàlleeku dafa fekk am na seen yeneen moroomu jigéen yoo xam ne bàyyi ngeen leen ci biir kër gi ñuy góor góorlu waaye yow itam moroomu jigéen ba ne ci biir kër gi na nga xam ne yàlla moo tracé ne di nga mhm. dugg ci kër da nga liggéey te li ngay liggéey itam yàlla na ci yàlla def barke parce que loolu la ñuy ñaan nga daa dee ut nag li may wax toujours bu ma tasee xale mu ne ma day def mii na daan doole ma ne ko del denc tuuti ci dentukaay yi mhm. buñ la fayee fukki junni na nga ci jël junni di ko dajale boo jëlee junni yi dajale ko ñetti at incha allah xaj na ci yoonu Gambie bi ak yoonu Mauritanie ak jënd ay bagages yóbbu ko dëkk ba di jënd di jaay jënd balu fëgg jaay yeneen ak yeneen transformation fruits et légumes yi mi ngi fi salon de coiffure yi ñu ngi fi nga dem jàngi métier jàngi ñaw yooyu yëpp gis nañ ko fi macha allah buñ ko dee lim duñu pare waaye na ngeen xam ne ndorteel la rek te yàgg bawul dara dara yàggul. doy baan yàlla na fekk mu am patron boo xam ne da koy fay à temps. Hmm. yorelu ko ay weer yu bari. Hmm. da ngay gis koo xam ne mu ngi téye salaire u jànq bi pendant presque cinq mois six mois. Hmm. ki koy ki koy def te di ma déglu na xool su fekkoon salaire u jëkkëram fayuñu ko ko pendant cinq mois six mois lan lay saf. Oh. Oh. nit koo xam ne loo xam ne bëgguñu def la ko. bul ko def doomu jàmbur. Ah? tuuru am naa jànq am na ñoo xam dañ koy tiitaroo sama jànq bi sama jànq bi te amuñu luñ ko fayee. ah déet dafay déet du lool sax <laughs> nit nit a ni mel sama nàngam bi sama nangam bi. Ah, sama dafa am doomu aadama yu yoo xam ne du ma yàlla ndax yàlla moom léppam macha allah léppam a mm-hmm. jàkk. dañu sàlloo rek di sama lii ña nga ca chiffre ya sama oto bi sama nangam bi sama lu ci dafa am ci doomu aadama waaw waaw waaw waaw waaw waaw ah, mais nag xam nga da leen a dab nag lu leen dab sonal la c'est ça macha allah lu la dab sonal la. aywa aywa dégg nga naan sama jànq bi sama jànq bi. da ngaa bëgg ma nuyu te sama jànq bi ca boppam. sama jànq bi pour nga fay ko. dootoo mm. nga fay ko su weer wi dee problème la. Mm. xam nga fa yow ko di ko dawloo di so la demee dawloo ba mu neex la nga dem nga nga dem ko et puis nit ñi ñuy liggéeyee ci biir kër yi dafa informel trop trop mm-hmm. trop trop ana yow ana man joxe koo carte d'identité ah, nee naa la jànk rek mooy dikk di liggéey te joxewul sax CV voilà bu dikkee ne mën naa c'est ça nga dugg ci biir kër gi nga bàyyi koog say doom bàyyi koog sa togg bàyyi koog janq defagul sax une semaine ci kër gi nga nar a génn kër gi bàyyi ko moom dong ci biir kër gi ça c'est dangereux. Mhm. beneen bi waxoon naa la fi benn système boo xam ni jànq ñenn ñu jubul ñi dañ koy def ñu jubul ñi. janq yu jubul yi. Mhm. maanaam dañuy am copain boo xam ni malfaiteur la. Mhm. maanaam agresseur la wala sàcc la. ñu dugg sa biir kër di fa liggéey nga dem weekend. gën nañ ni kër gi dafa wéet papa yaay doom la. da ngeen di dem weekend yenn saa yi da ngeen di dem yendu ji kër meen ba ak yooyu. nga ko soo raxasee soo su sa liggéey jeexee nga tëj yóbbu caabi ci. maa sama caabi. fekk yéen fa ngeen war a def vendredi samedi dimanche. yow appartement bi ngeen dëkk doo leen waxante ki nga jàkkaar lool xamu ko xamoo la xamu ko immeuble bi koñ bi kenn du wax kenn ki lijjantiwul kenn. kenn xamu la fa nga jékki-jékki. benn waaye ñëw yor caabi ubbi appartement bi gaare oto yeb bagage yëpp dem ko waa koñ bi ñu ngi gis ñu ngi yeb bagage yi mais day jàpp ni yow da ngay tuxu bu baax mm-hmm. ou bien yow yaa yeb bagage yi parce que tàgguwoo kenn amoo kenn wax waa koñ bi da wax ak ñoom doo yoo sa jabar yaruwul yow sa bopp sa xaw xaw yaruwoo lool comme nag sa doom yi miinuñu la léegi nag xamuñu xamuluñu la dara daal te yaa ngi ci mm-hmm. koñ bi mm-hmm. laa da am problème dañ da ngay xëy suba ñëw ubbi sa buntu kër mu ubbee nga gis ni dajjiwuñu dara nga xool saal ma doo fa fekk dara nga dugg sa néeg doo fa fekk dara nga naan foofu affaire jaar fekk jànq ba dem na weekend mhm. jànq ba xëy su ba ñëw fekk fi coow li mhm. ah man damaa wàccoon ba nga ne ma tëjal damaa tëj police nekk fa di enquête fekk dem seen dem seen kër ñu seede que ne mi ngi woon seen kër moom mi ngi seen kër mhm. xam nga xam nga tey ji enquêteurs yi suñu lay enquête di la topp dañuy dañuy dañuy dañ lay topp topp sa téléphone topp sa lépp sa bougement sa lépp la sa déplacement yëpp la ñuy topp. xam nga te dañuy def très attention dëkk bi fii nii gars yi ku ñu mënta jàpp amul. ku li may wax mooy képp ko xam ne yaa ngi ceeb quartier wala nga nekk ci immeuble fexeel nga laami sol ña nga dëkkal. Mm-hmm. xam nga su jànq bi na a def ko su du noonu sax waa koñ bi danañ xam ne ah. waa ji di xamuluñ ko lii. lii xam nga mais ñëw toog ci koñ bi. Mm-hmm. ah di jaayi tubaab te yow yaa ngi dëkk ginnaaw koor kóor ak joor. ah ñëw fii di jaay làkk tubaab làkki français yu rëy. te xanaa ñi làkk français danga leen a mere. non non non non dama bëgg non non merewuma leen de dama bëgg nit ku am. Euh, ku fonk cosaanam. Mm-hmm. macha allah comprends nga. Mm-hmm. kon am na ñoo xam dañoo rusa wax wolof. te seen maama maam seen maama maas wolof. ah bon sa maam moo maas wolof. moo maar sa maam moo maas euh, euh, tukulóor gi. ndoy ba sa maas maam moo maas séeréer gi. te nga wax ni tamit may wax ma ciy wax jànk ji kan nañu nañu mm. moytu loolu. Mm. dafa bokk dëggantaan ci ak tooñ. am sa mbandaar yi mu nekk ci koñ bi nga ne da ngay nobanteeg moom. da ci am ñoo xam ne nobante gu bees day yóbbu seen bopp. boroom kër gi dem na liggéeyi ay doomam dem nañ jàngi. Mm. xale bu góor bi xëy ñëw ndekkee sëy ci kër gi mm-hmm. ah. ràcc ci biir salon bi teg tànkam ca kaw taabal ji yor télécommande ba di zappe te naan télé bii moom neexuma dëggantaan télé boo jëndul fayoo courant bi benn seen waru la cee mën a neex nga ràcc añ bi pare ñu tibbal la bool bu tàng jër penda mbay boroom a ca bureau ba boroom a ca port ba di dang-dangi ma nga ca feneen ñu tegal la bool bu tàng jër nga lekk ba suur te naan ataaya yi kañ lay ñëw ñu ni la sa kaasu ataaya nga naan lawal këmal këccal ñetti baraada yi lawal lawal këmal këccal dafa am ko tey jii laa ko xam man tey jii. Euh, yàlla na ko yàlla yërëm sama sama taaw papa. moom lañ naan premier deuxième waaw Youssouf Badiane yàlla na ko yàlla yërëm lewal kamal këccël. waaw moo daan wax Bintu doo ma tegal foofu la lewal kamal këccël bi. <laughs> yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan nga toog di xaar la wal këmal këccal toog fi nga toog tegale say tànk bu sangu jotee nga dugg ci biir duufu jàmbur Abdoul Aziz dafa mel ni fekkee na yooyu jamono ma ngay signé de eh, mais mag la dafa demoon ñëwaat jamonoy Sacré Cœur rakku Mounir la ci rakku Mounir Sy la ba ñuy xar xeeru Sacré Cœur ya gone gi yow rakki ñoom dañoo dëng comme seen mag ak ñoom Babacar Sy xam nga yow loolu nga toog xaar sangu ci biir kër nit ki defe fi lépp ba mu wóor la ne borom kër gaa ngi ñëw nga doog a départ dafa am euh, sama benn yaay bu ma woo barki dem ne ma jànk li ma mus a def lu ma naqari du ko def kenn ci àdduna ma ne ko waa mu ne ma jànk moo dugg sama néeg takk samay bagage si néeg sama nuisette toog ca sama kaw lal lal sama dara ma ne ko waa mu ne ma di photo wu di yónnee benn waayam ba photo yi rëcc moom doomam ju mu jur moo ko gisaat mu ne ma keroog damaa jàpp jànk bi bi ma ko mbéjee man sama bopp dama ko mbéj ba pare arrièreaat toog ndax dama xam ne def naa lopp mu ne ma mais keroog lam ma def moo ma naqari ndax damaa xam ne kii ku yabaate la am na ci ñoo xamante ne dañuy bind. bool lan la jànq bi sol noonu ñëwaat ci. ay bagages biir ay bagages yi bagages ci biir néeg. Abdoul Aziz bu dee da nga am benn élément. Ah, xam naa dina ñëw ci élément bi balaa doy baan waa am na ci jànq joo xam ne dañuy bind bool sa biir kër. dëgg la borom boutique bi ñu dendal dañ koy bindal bool. dëgg la. mu di leen fay par weer. dëgg la su ñu yekkee yow nga yaakaar ne lu baax la ñuy def wala yow nekkoo fa ñu tibb bool bi yóbbul borom boutique. wala ñu tibb yóbbul kenn ki nekk. dañ koy jaay dañ koy tibbal bool. su weer bi deewee moom daf leen di fay ñu dugal seen poche. dëgg la am na ci ñoo xamante ne yow ci sa alal ci la ñuy jëndee yaa baax ci koñ bi. di yàqalaate di mayewaate di def leneen te naan booy delloo si bool bu ko sama patron yeeg ak a bon te siis ta soxor dëgg yow bu sa patron la tegal lu mat ba ngay togg di tibbalaate loolu mu génn nga dugal fa góor c'est day am loolu li muy li muy am bari na euh, te te gis nga nag jànq yooyu nag am na ci ñoo xam ni euh, da leen di nax da gis benn xale bu góor bu nekk ci koñ bi nii mm. gis jànq bi di ko raasaatu du jànq bi la soxla ci biir kër gi la bëgg a su dugg war a dugg sàcc fa da koy jaral muy kar jànq bi doxaan jànq bi ba jànq bi nopp ko su ko jànq bi nobee mu fexe bu dugg ci biir kër gi su dugg ci biir kër gi mu jéem a trompé maanaam jànq bi li mu jànq bi relation bi daf ci def def ci sérieuse mm-hmm. mais waa ji loolu taxu koo jóg waa ji li ko tax a jóg mooy dugg ci biir kër gi parce que xam na ni kër gi papa yaay doo fi nekk oh. papa liggéey na yaay liggéey na xale yi jàng na jànq bee fi nekk léegi am benn xale bu góor bu ne ci koñ bi boo xam ne jànq bi lay yeeru da koy jéem a gérer xale bi nopp ko mu dugg ci biir kër gi fexe dugg ci kër gi dafa naanee kafe ak yooyu su jànq bi de nelawee tuuti da koy yónnee boutique ba am demal jëndi boisson maa ngi toog ci salle bi la xaar nga dem jëndi boisson jànq bi de am fitu ah. yaba am fitu ba keneen. ci bàyyi kenn ci biir kër gi ku bokkul ci kër gi. voilà foofu la leen gaa yi parce que dama gis benn scène boo xam ne dafay dafay dafay am jànq bi noonu la noonu noonu la ko waa def di waa ji da ko opéré opéré ko ba ba labat ko ba mu yaakaar ni am na faro bees ci koñ bi gëm ko. mu ñëw dugg ci biir kër gi toog di naan café ba waa ndaw jànq bi wóolu ko une semaine deux semaine un jour mu jox xaar jëndi ko crédit la ko yónni carte crédit xale bu jigéen bi dem jël jëndi carte crédit. xam na ni boutique bi waa xam na ni boutique bi li mu ko yónnee amul ci boutique boobu ndoo si dem xale bu jigéen bi dem di ko wëri feneen mu dugg ci néegu femme bi génn or yi. sàcc or yi yëpp. tey mu dee moom ndaw si ni ni ni fees seey bi mu ñëwaatee fekk fa waaja. bi mu ñëwaatee fekk fa waaja ñiy wër waaja ba sonn gisuñu dañoo jàpp ndaw si. moom a dañoo jàpp jànq bi donc jànq yi boppam des ay victimes la doon mais loolu. kër jàmbur suñ la fa dee liggéeyloo amoo droit di fa dugal sa jëkkër te muy dëgg amoo droit di fa dugal sa far am na ñoo xam seen jëkkër lañ fay dugal mm. su nit ñi liggéeyee jee te di ñëpp demee liggéey ñu woo seen jëkkër ñu mu ñëw fa parce que tey jii soo kër goo xam da nga fay liggéey 15 jours ba 15 jours ngay liggéey ngay wàcc wala un mois ba un mois ngay wàcc sa jëkkër nekk ci dëkk bi tem nga naan ko sama tànta 18 heures lay wàcc diggante 10 heures ba midi. wala 13 heures mu kaay añ si nga ñëw añ si xoolal la mu lañ war a defal borom kër gi lañ koy defal waa ji ñëw añ ñu ataayaal ko mu naan oto ñu sieste. Euh, defal ko jarum soow def ko jarum soow match match bi et puis moom moo fin. beneen bi ci toppit borom kër yi Eva nañuy moytu di bàyyi seen caabi yi koy wër. nañuy moytu di bàyyi àddinay caabi ci biir kër gi muy balaagal xam nga léegi serrure yi dañuy am cinq caabi yow mi borom kër gi roppil sa quatre caabi tey bàyyi fa benn ba sul réeree nga laaj ko jànq bi parce que cinq caabi yooyu ngay bàyyi wala quatre yooyu ngay bàyyi muy belangal noonu da ngay jékki-jékki benn caabi wekkeeku ci boo texatee comme man doo ci bàyyi sa xel fekk na xale bu góor bii ñëw ci kër gi. yow Diop ala tëxat. rocc na man maa gën a tëxat ku yàlla bi ah ca bisimilah man xam nga mbàkk mbàkk yema yàq fi mu nii damay belangal waaye boo ko yóbboo <laughs> dootoo ko defati te ko fi bu ko yóbbu njóogu intéressé laa lay wayal mhm. caabi dañ koy denc su réeree nga xam ne benn caabi nga joxoon jànk bi nga lijjanti ko soo amee jànk tey su jànk bi bàyyi bàyyiwee changer sa serrure buntu kër c'est vrai parce que nit ki tamit dafay jël temps ci boppam mhm. changer serrure ba su dikkaatee bu dugalaatee caabi di ubbeeku mais yow am jànk rek tëggal ko mbay ngaan rek bàyyi ci biir kër gi li ñuy wax neewuñu kenn nga ñaaw njort ci nga nekkal mais del bàyyi sa xel ndaxte àdduna dañ koy sóoraale. très bien. Hmm. àdduna dañu koy sóoraale moo tax itam dinañ ko wax jànk yi léeg-léeg nga dégg gis benn njaayeen bu ñëw fëgg ne sa patron moo ma yëndi patron yëndiw ko jamono dafa dafa jaxaso et ci kër yi itam bunt yi nañ ciy def œil de bœuf mhm. niñ koy waxee comme ça nga mën a yëngu xam ki dikk nii kan la waaye ku ñëw rek fëgg nga war ko ubbi lu ne am na ci àdduna lu ne am na ndoy baan et puis tamit euh, patron yi wala ak patron yi nañ xam ni jànq yi am na ci ñoo xam ne ay cadre lañu jamono jii ci yenn ministère ak yenn entreprise yi ay jànq la ñu woon ay cadre lañu mhm. instant bii mhm. ñii ay enseignante lañu ah bien sûr ñi ay nangam lañu gis nañ ko ba tey jaar nañ ci liggéeyu jànq pendant des années mhm. li tax ñu ko doon def dañ ko doon def parce que seen parents yi seen loxo ñu seen ginnaaw pour pour jéem a fay seen jàng ñoom seen donc di nga yor jànq sa biir kër mu dàq laa jàng foofu dëgg la ëpp le niveau intellectuel ëpp niveau intellectuel nag taxul nga gën kenn wala taxul nga gën a euh, gën a avancé nit mais dama bëgg a xamal ni jànq yi nekk des fois nga gis jànq mu nekk ci biir kër gi di dof dof lu fekk moo la gën a yeew junni yoon donc nañ ci nit ñi def très attention loolu lépp soo bëggee mu mu mu mu mu dañ da ngay dindi ci sa ci ci sa bopp ak rëy dindi sa bopp xeebeel nit koo gis muy jànq muy gardien muy chauffeur. nga def leen ni sa bopp. li nga bëgg sa bopp. dama doon dégg Cheikh seenu sëriñ ba Cheikh Bassirou. te ñuy fexe bu ñu ko jànq yi mayee ñu jël temps di yàgg ak ay jànq parce que nañu wax nag am na patron yoo xam ne dégg naa leen ci waxtaan fii. ngeen koy wax dunu bañ nañu ba du dunu yàgg ak jànq mm-hmm. yëf bi nii lay demee ak nii rek zigzag la zag zig parce que nee nañu boo yàggee jànq dana tax mu xam sa réalité kër te mën na koo génne ci biti mm-hmm. ñii ne nañu yàgg ak jànq dafa gën doo xam finalement Euh, pour wax soxna si ne liir na message am doo xam finalement naka ngay def. xam nga lu gën a metti <coughs> xam nga lan moo gën a metti ci àdduna. waaw commencé waat jànq bu bees. Mm-hmm. dangay ngay commencé waat di coacher waat di nekkaat di toppaat di ko wanaat li nga bëgg bala mu koy xam yow sa bopp yaay njëkk a sonn parce que temps bi nga ciy jël dafay bari d'accord moo tax am na ñoo xamante ne même jànk day nekk ci biir kër gi mhm. di ruubee di def lu leen neexul mais dañuy préférer bàyyi ko fa mhm. mais daf ci am jànk yoo xamante ne tamit liggéey taxu leen a jóg waaw nee naa la fas nañu yéene 499000 boolu ceeb bi ci ndakaaru yëpp bu ci nekk ñu sukk ca. Mhm. très koo dégg ci kër gu nekk. très bien sama xel dem dem itam waaw kañ euh, sama xel dem itam ci jànk yi nga xam ne dañu nekk ci kër yu mag yi mhm. dangay ñëw ci kër gu mag gis ne ñoom ñëpp bokk ndey ak baay mhm. waaye ngay def par parloo di am koo àndal ak dafa mel ni sunu bërëb bii nga dikk ba fii ne diw laay xaritool du ma xaritoog diw mhm. yooyu itam nanu ko nanu ko éviter ndax yow dangaa ñëw dong daan sa doole fekk kër gu mag ñëpp bokk bu la kenn yóbbu ci côté am jàppal diw ak bàyyil diw yëfi clan man daal bu ñu ma doon laaj lan laa bañ ci àdduna danaa wax Evatra clan la allergique mhm. na yëpp liis mais nettali ma la nettali ma la fii keroog jànq bi nga xamante ne day ñëw ci yow ne la gisoo sa mag gi ni mu lay xoolee yow rek la bañ joxu la benn cër dem ci rakk ja ne ko nit ñee ngi bëgg nit ñee ngi bëgg frère yu jaxasoo ak sœur yu euh, jaxasoo. dafa am nit dafa am nit ñoo xamante ne bu ñu duggee ci mbir. ah bu ñu duggee ci mbir dañuy mel ne comme ñu yor seeni pion di dam dañuy gi di teg am na janq joo xamante ne wujje gañ war jë ñaari jegee war a wujje ñoom ñoo koy wujje ñoo koy wujje voilà loolu laa la boon bëgg a wax maanaam ñaari ñaari ñaari seen jànk yi duñu wax may ma ko ma dem xeexi te ñëw ma xëppanteeg moom asit yow wutil jëkkër te dem sëyi ngay wujjëlas ki la jël mais nag naa la wax dara de te danaa ko wax ci kaw ñu ñëpp benn ci Evatra jigéen ñi dafa am loo xam ne dafa xeewi jëw xewi na xëppante asit xewi na waxante lu bon xewi na. ma dem toj fa te ñëw xewi na ku ci ne soo xëyee. fi sabilillah na nga xool li lay jëmale kanam nga koy def yokkute rek nga ci am da nga ci am su àdduna am ci bonusu àdd àllaaxira ku leen di xëcc ci mu defante bañ leen wujj ba nga fekk ca biir kër ga mhm. fan ka fekk de moo la fa jiitu at yam fa def ndigal ba def ko fa xool naka ngay mel ka nga bokkal ndey ak baay yàlla may ko nga la may ko jàmm damay dégg du ma ne damay dégg sax ne léeg-léeg euh, ñi ñu koy war a wax dafay bare ba tey noonu la ñuy wax ndoy baan bu yàlla defee ci yow nen nii te amoo ko na nga fexe topp ki ko am daan naa dégg boo amul njëgu parfum da ngay daraw ki ko ki am njëg gi Seydi Aboubacar Si daan na ko wax radiyallahu anhu man fi mu ne bi ma mag ñu baax ñi man xam nga damaa bëgg udd mais aw ma njëg gi man de xaw ma luy. damaa fexe ba sama yaay ji njaay jaata ma ne ko ñàmp rek. lan mooy oud. parfum euh, yow doo ma bàyyil ki nga xam ne. yow ah eh, imam di jàppe oud macha allah. man de li ngeen di wax ba tey xaw ma ko. imam bu ut la jàppee Abdoul Aziz Fall. man damaa fexe ba def ko markaat sama yaay ji rek fu mu jaar ba jaar rek ma jaar fa. xeeñ léegi ma bàyyi la nga tàggoo waale. waaw xanaa delluwaat di tàgguwaat ñëpp rek di wax ne waxtaan wi yëpp li ñu ci jublu rek. mooy mu baax ndaxte xam nga lu tax. dëgg la Diop yéen ñiy dem di liggéeyi. Mm. ba tey fa man fa ma doon daanelee rek laay nekkaat. Mm. xam leen li leen tax a jóg waaye yow mi nekk sa biir kër di ji wut jànkitam xamal ne yow yàlla daf la abal mhm. rek dénk la mhm. loo xamante ne ni xëy na wërsëgu kee def cee nekk ndax bu ci wërsëgam nekkul woon du ñëw di ko jël si million millions lañ xoolal ne ñu baree su ci yàlla tànnee kenn indi ko sa kër mu am lu mu fa war a jël si mhm. loolu day wërsëgam bu wërsëgam jaarul ci sa loxo du ñëw mukk mukk mukk jël si ko waaye yow miy dem di liggéey itam xamal ne ku jaay juróom ñeenti màgget njëgu maamam jaaxalagu ko xëy na bés ba mu koy jaayee egg seegul dellu sil tuuti yow miy dem di liggéey ne naa dem nax jeeg ba trompé ko mm. ba jël jëkkëram wala ba jël leneen mm. xamal ne ki jaay juróom-ñeenti màgget njëgu maamam jaaxalu ko xëy na kay bés boobu koy jaayee egg seegul te nag ku gaana ba jeeb bi sax ndoxum siti dalaa war atuta saf nag ndax loo wokkutu wokkutu fekkoon na defoon nga ko daaw mm. delluwaat di tàggu sama ñaari mag yu baax yi kenn ki nag mag yaay la di Fatma ci bu Jóob Jóob Asan Maram Penda maa ngi lay jox sa wàccuwaay waaye Binta Amar moom kan moom soxna Mariam mu Njaay ak Sëriñ Ibnu Amar maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax danga maa bëgg di nga xam ne maa la raw lool lool di wax ne may laat Jóob sama rakk jëfale ca Kaolack nag tey moo ma sañseel nee na daf jox yeeli maam noonu mm. ndax dama am sët xam nga man Eva samay rakk man lañ leen dayeleel ma am sët noonu noonu mu def jox ma yeeli maam waaye di wax ne Abib Ndiaye moo jaar ci ñoom bi mm. mu defal leen ci yu baax yi xadi borom salon bi fii ci almadi mii nii sama soppe boobu yow xadi maa ngi lay bëgg yow itam yow mi jaar ci bopp bi di wax ne waa Sénégal kenn gënu leen ba subaak jaam meeru ruubekat très bien te moom délégation am la am macha allah ñu ngi nuyu bu baax a baax ak foon soxna Ngalla Mbuub macha allah sunu njëkkee bu baax boobu di nuyu ajaratu Ndey Roxaya Mbuub teg nuyoo bi nag ci loxo ajaratu Faatu fofona sama bos ñu ngee ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm kontaan nañu lool li li waykat ba doon way naan Sénégal fi gën njëkkee ndax sañ naa wax loolu mm-hmm. <laughs> ajaratu aada aada pilo ñu pilo mën naa ko wax aada Elodie ñu ngi koy nuyu Adja Awa Diagne itam ñu ngi koy nuyu koor pilo macha allah euh, di nuyu nag mbokki ndar yi bu baax a baax du nu liim du nu liim waaye nu ngi leen di nuyu bu baax a baax Adja Aminta Mbuub Eva Tra daal tey dafa xëy rek nuyu ay njëkkeem di defar këram macha allah. xam naa ne umu xayree nga ca suuf. jël yëpp nag teg ko ci loxo ami ami Konte Sey macha allah Sey Konte Konte Sey. kan moo ciy mbaraan bébé ku ci mbaraan sa njëkkee am nga ci njëkkee boo xam mbaraan bu góor bu ñëw mu sama kooku kii la kooku ami say fàll la ah, waaw moom day dikk ah, rek euh, indil la indil la supp boolu supp neel ca la bokk <laughs> ca la bokk <laughs> mbaraan bébé yi tamam jàll moom day bàyyi ba guddi mën la man pourtant liste njëkkee gaa ngay dem de ajandee la wadd waaw tamam rek na nit ñi génne ak rëy ci seen bopp. dëgg la ba pare génn ci seen bopp xeebaate. ndeysaan su loolu dañee dañee ci sa yow rek. waaw nga mën a nekk ak jànq yi. <laughs> jànq yi tamit kuy ñëw ci kër di liggéey nga ànd ak sa bopp di jéem a woyof. macha allah ànd ak ak yar ak i teggin. Mm. ak mën a tëj sa gémmiñ comme ni ko mama mama mi waxee. Mm. kër goo xam ne ñaar jiw aaw ak la fa nekk. Mm. Eh, jànq yi ñoom ñaar ku ne am sab jànq. Mm. jànq yi di wujjante te yooyu doy na waar beneen bi mooy góor ñi mu la koy wax moo ma yokkal la di Sénégal waaw boo seenee sa xaritu wujj sax dangaa fas sa kanam ah, mel ne yaay wujj wujj nanu ba jigéen la ñun la rek yooyu dafa ay ci àggaleel waaw ñu jéem a occupé kër gi occupé borom kër gi njabootam mm. moo gën ñu leen di ñuy bàyyi ñu leen di occupéel kër gi mm. di leen occupéel seen borom kër yi suñu kii bàyyiwuñu ko nag yu mel nii rek moo fay am ndaxte fonk doomu aadama dafa am solo sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre dañoo toog di waxtaan mu ne ma sa jaamu yàlla du mat mukk fi ak fonkoo dow so so mbokkum jullit maanaam fekk li nga yéene sa bopp. yéene woo ko mbu sa mbokk jullit yi. sa jaamu yàlla day. Eh, sa jaamu yàlla doo doo doo yegg. bijouterie merci Ndoye Bane bijouterie rotonde Evatra mi ngi leen di remercier beaucoup beaucoup beaucoup euh, seen bijou yi rafet na soxna yi gaaw leen gaaw dem seeti ko li ma ne kenn jëwatul ñu ngi ci natt yi ku ci am téeméer dénk euh, sa sa tëgg ku ci am ñaar téeméer ka bu boobaa di nga gisee àdduna neneen kon boog ñoom itam ñu nga ca 33 840. 842 65 95 33 842 65 95 Ndey Ami Coiffure ma nga ca 77 648 56 77 648 56 Penda Asta macha allah yéen itam Eva Tra mi ngi leen di remercier seen mbubu du xewi mukk jërë ngeen jëf di wax ne rek ndoy baan am na lu mu wax léegi moom la ñuy tëjee kay xeebaate daa matul ne boo matee da ngaa foog ne ñëpp dañu mat macha allah koo gis muy niitoo ko gesu kile booba la muy wër ca moom la ne macha allah yàlla na ñu yàlla def nu mat bu nu matee rek incha allah ran ran yi dana jub te ñu koy waxee rek ne dinaay dégg ñu naan daaray la jarta gudd nopp jarta jaay gudd nopp ne ku ne Ah, wax dëgg yàlla xam nga ne loolu dafaa ne gàññ yal na yàlla baaxal suñu jikko yi lu dul jarta jaay gudd nopp macha allah lu dul baax baax a ko gën nañu tekk rek sunu yëf yëpp macha allah ci mbaax bu ko defee fu nu wooyee yàlla rek incha allah dana taxaw sunu kanam sopp nañ leen bëgg nañ leen lii mooy seen émission wareef dañuy jukki rek di dem bu subaa incha allah ñu daal di tëj waxtaan bi indi nag beneen thème boo xam ne da ngeen di gën a togg ci seen kanamu télé yi dinu seetaan TFM ca kanam TFM ca kaw xéewal dolleeku fi wërsëg dolleeku fi luy defar diggante yàlla na fi yàgg macha allah